assalamualaikum mbokku téléspectateurs yi sétane tay ñu ñëwaat ak yeen sen benen numéro découvert tay ñi ngi ni ci Mbour wara a ñëw découvrir bergerie bi nga xamni tay muy bergerie mystique euh, bu lig Luc euh domam yor ko bu ñuy wax wili tay ñu wara ñëw découvrir xar yi découvrir xar bu mag bobu nga xamni tay turum ci élevage mën nañ ni dootul fay macha allah muy roi salum ak lepp lu jëm umbu ci bergerie bi war nañ aussi dem ci tool yi ñu wané ni aussi que ni ndaw war na mën a yëngatu ci bay pourquoi pas euh, boole l'utile à l'agréable donc tey ñi ngi fii ci mbuur war a ñëw découvrir bergerie euh, mystique bu Luc Nicolaï ñu dugg ci biir euh, xool li fi ne incha allah. salaamaaleykum ngi jaar bu baax alors bergerie bi moo nekk nii tey vraiment ñu kontaan trop pour ñëw fii tey visiter bergerie Mystique Ligue Nicolas euh, nga présenté wu un ci ñi lay seetaan. Euh, asalaamaaleykum bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi. di sant suñuy ñaari waajur <coughs> di nuyu ñëpp. Euh, di nuyu mbokk internet yi ñuy seetaan sénégalais yëpp diaspora ñëpp ñu ngi leen di nuyu. <coughs> man maa ngi tudd Willy nekk fii ci bergerie bi. Mm-hmm. Euh, di gën yëngu ci <coughs> élevage ak agriculture. mais instant bi nii ñu ngi yéen ngi door di yegsi ci bergerie bi. nañ def présentation bi. ngeen dalal jàmm. waaw Willy bala présentation bi tey bergerie bi lan moo ko sos xam nañ ni tey ku tudd sa papa kenn doon ko présenté tey ci milieu bi peut-être. moom mu nekk dans le milieu de la lutte yow nga ñëw nekk ci milieu élevage. Mm-hmm. bergerie bi nu mu demee bergerie bi yaa ko moom wala sa papa ko moom comment ça se passe <laughs> amour élevage nan la la duggee tey ñu xam yow sa papa mom il est passionné par la lutte. donc yow nga ñëw passionné wu ci élevage. lool lan mo waral tay transition boobu. waaw boy xool euh, bergerie bi mi ngi sosu mi ngi joggé ci pa bi. Mhm. ndax pa bi dafa doon ko xamante dafa yag bëgg affaire da xar. Mhm. comprendre nga du ci laadum mi la commencé parce que pa bi yag na jaay xar comprendre nga di jaay mhm. mbuur fi ay xar di jëndi xar sànjare ci àll beeg yooyu di ñëwaat di jaay mais bergerie bi ñi ngi amee amuram booy xool diggante année 2012 2013 bi ñu sancee bergerie bi parce que fii nii mi ngi nekkoon euh, benn chantier boo xam ne suñu ay xar lañ fi dencoon léegi nag après bi ñu demee ba si biir nag laadum bi commencé am doole ci lañ tàmbalee loolu kon pour ay xaru événement tabaski euh, voilà ay xaru yar yar nii rek par amour hmm. après ci lañ demee nag commencé changé di changé fii toj bâtiment bi commencé defaraat bergerie bu rafet et tout man tombe ak année boobu noonu ma am sama bac bàyyi jàng xam nga nekk si liggéey di liggéey di liggéey ak paar yi ñuy liggéey ensemble ba yàlla dogal bergerie bi taxaw vers 2013 côté yooyu. d'accord après bi ma ñëwee nag bon affaire bi commencement bi man xar yi maa leen doon toppatoo. Mhm. balaa fi yëpp di am bergerie bi maa leen doon sang et tout man ak sama grand ñoom baabu affaire yooyu ñoo leen doon sang di leen jox lekk affaire yooyu. bi ñu demee bergerie bi taxaw nag. amour bi nag gën a yokku nag parce que laadum yi dafa ñëw indi beneen affaire maanaam laadum éleveurs yi dinañ xam li may wax mhm. laadum am na amur bu ci nekk bu nga xamante ni maanaam mënoo ko expliquer doo ko mun a wax mënoo koo wax léegi nag fa la ma affaire yi duggee mhm. bon mu nekk ci ak arrivé wu Saalum Saalum aussi 2014 juillet loolu dinañ ci ñëw loolu dinañ ci ñëw léegi dugg xool bergerie bi nga présenté ah. ma un peu fi nekk di fas la da mel ni ah. ki mom suñu fas la boo xamanteni suñu ah. xarit la. waaw ah. <laughs> ah, du fas bo xamne dañ koy tak non dañ. waaw dañ ko jëndu bay dañ ko bay ko ci jëte gi quoi macha allah. ñu xool box yi. bu mel ni ñi ngeen gëné ci couloir bi ni ñii tay waaw gis nga yi ñu gëné ni mm-hmm. manam boy xol xar yi li ñuy bëri bëri yëpp. Mhm. ñoom ñëpp par journée dinañ am bain de soleil. d'accord comment nga parce que bain de soleil bi da leen di jox calcium. dafa baax si ñoom naaj bi. naaj bi da leen di jox calcium day dëgëral seen yax yi. te ñoom chaque jour. maanaam fii booy xool xar yi li tax ñu am wér gu yaram. loolu gën na see bokk. ak suuf bi aussi. waaw suuf xar du karo kese la soxla ak. ker gi ak luxe yooyu noonu day ëpp si moom waxuma nag ñeneen li ñuy def baax man li li ñu concerné la parce que yow da ngay xool ci say élevage ak nature bi comprendre nga dañuy profité ci nature bi naaj bi moo tax gis nga leen chaque jour da ngay gis xar yi di génn di doxantu même bu ñu hmm. leen di xont sax fii la ñëw fii la lekkee xam nga macha dañuy am liberté dañuy am dañuy free quoi dañuy free bii naissance bu bees waaw ah, bii naissance bu bees la. kan moo ko jur naissance bu bees la. doomu kan la. waaw ah, galas la doomu ah, galas. ok galas yaayam doomu gaynde la. waaw bii doomu gaynde la nekk nii waaw. ok ñu dugg xool yeneen bopp yi. ayca. yi yan yan sujet ñoo fi nekk. bon. bii booy xool euh, kii mooy zam-zam zam-zam moom yaakaar naa ne ku ko xamul dégg nga doomu saalum saalum la yaayam mooy Calvin Cap Calvin Cap doomu daktif la waaw muy xar boo xamante ne am nañ ci moom yaakaar xam nga waaw waaw koo xool xam ni macha allah jeune mâle bu rafet la waaw macha allah waaw allah macha vraiment muy onze mois mois waaw. di waaj dugg si un an. macha allah allah mais tey tey bergerie bi tey taxawaay bi nu mu demee ban année ngeen ko sànc ak euh, nu comment ça s'est fait. waaw bergerie bi ba xool ñi ngi ko sànc euh, vers 2013. xam nga mm. parce que paa bi mooy li ma wax sànq dafa yàgg nekk passionné wu xar après nag bu ñu demee ba élevage laadum bi ñëw fii melul woon nii. fii booy xool chantier la woon mais amoon na ay box yu kii woon. après si lañ commencé nag voilà commencé aménager di kii di dem ndànk-ndànk. boobu amoon nañ fi ay laadum mais doonu woon race yu mel ni Saalum. Saalum d'accord comprends nga après nag bu ñu demee nag ba doxal nag ba taxawal bergerie bi ci la paa bi nag demee jëndi Saalum Saalum. Mhm. boobu mi ngi ko jëndee si suñu benn waay bu tudd Adama Diouf Tëngëj. maa ngi koy nuyu au passage mu doon suñu grand bu baax. Mhm. saalum saalum ci moom la ko paa bi jëndee. Mhm. léegi bu mu ko jëndee nag fa la affaire bi defee déclic. macha allah parce que mi ngi ko jëndee woon prix bu cher ci ci jamono boobu bi tolloon mi ngi ko mhm. jëndee woon quinze millions. Mhm. bon amoon na nag éleveurs yu xawoon opposé. ci loolu et tout saalum saalum. jarul loolu xam nga. waaw saalum saalum jarul. prix yooyu parce que boobu fekk na prouvé gul. d'accord mais paa bi ak visionnaire bi mu doon ci xar. moom gis na ne que xar bii nii mun na am ci moom loo xamante ni. dina doxal élevage bi bu waaw parce que moom gis na ci moom loo xam ne. tey voilà qualité yi voilà. am na qualité yu mu ci repéré. Mhm. ak qualité critères yoo xamante ne gis nañ ko ci. Mhm. non mais. buñ koy jënd boobu noonu. waaw parce que loolu gëmuñu ko woon parce que gisuñu ay doomam. demul foire deful dara. mais après nag bi ñu ñëwee. paa bi daa jënd saalum saalum ñu commencé liggéey nag parce que affaire nekkul da ngay ñëw rek jënd maal kese ci lañ commencé liggéey. jënd ay femelle doole ay femelle yu baax mhm. mais investissement la woon nag parce que dañoo jënd ay femelle yu bëri yu baax mhm. indi leen commencé nag suñu liggéey croisement bi fa la bi nag commencé 2014 macha allah fa la affaire bi commencé def nii nag mhm. Saalum commencé produire doom yi di génn xam nga yaa yi di gis fofu nak affaire bi lancer wu carrément. d'accord fi fii femel femelle ñoo fi nekk femelle daa mel ne jé centre de. Ah? wa fi femel yi mom yu ci bari danaka tëbu nañ. waaw dañ yi tëbu mom dañ leen di ber. waaw. yi ci yi ci tëbu dañuy am sen place boobu parce que waru ñu yëngu lu bari waaw bu ñuy yëngu lu bari ni rek. da leen di lo loo. donc euh, dañ leen di ber. ñu tegu ñëpp ñu ber leen bàyyi leen ñoom kese seen box. oui macha allah. xam naa après dinaa la boole ak Thierry mu defal la yenn présentation. yenn Thierry dina ma def présentation xar mais aussi tey euh, bergerie mystique Luc Nicolaï. Mhm. dañoo gis ni yéen tey seen présence ci foire. bariwul mhm. bareetul donc du moins mun nañu est ce que mos ngeen exposé sax foire. bon ci lu ma xam man est ce que lu waral ñàkk exposition foire boobu xar bu mel ni Saloum. Mhm. turam dootul fay ci élevage. mais parfois ak lu mu magee magee nit ñi dañ koy bëgg a gis dañu bëgg a déglu Saloum ah. parce que Saloum léegi nekk na benn mythe boo xam ne wala nekk na toll na foo xam ne tey hmm. turam mi ngi ci kaw ci hmm. ci ci élevage dëgg la léegi lu waral loolu waaw booy xool loolu maanaam li ma la ko mën a tënkalee ci gàttal mooy nekk tey jii lu précieux dafa war a raar warul warul bëri tambar tambar quoi yow tey jii nii boo amoon jamaa hmm. jamaa la boo ko amoon yow ah. est-ce que di dem taxaw ci marché bi nii di ki jamaa danga nga koy denc. mais dina am ñoo xam ne xam nañ ko te dinañ ko bëgg a gis. waaw comme loolu la. d'accord loolu suñu xeetu marketing la boo xamante ne saalum saalum. Mm-hmm. depuis ñu jënd ko mosul dem foire. Mm-hmm. maanaam production am lañ doon liggéey te Mbour saa yu amaan foire xam nga éleveur dañuy ñëw fii dañ fiy fees. Mm-hmm. dañuy visiter chaque week-end et tout mais moom mosul génn foire. parce que aussi tamit. boo yore su produit mu raar da nga koy valoriser da nga koy jox valeur nga denc ko xam nga gars yi ñëw wër si dëgg la macha allah gars yi dañ koy wër si parce que loolu mm. aussi système marketing la quoi pour pour nit ñi gën a mën a am kumpa ci mm-hmm. ci ci ci Saloum léegi fii euh, benn jeune benn jeune kii jeune mal maal bu mag la kii mag la kii mooy galas waaw galas a ngi nii galas moo nekk nii galas doomu kan la la nag doomu Clotilde Raymond eh, domu Calvin Kaplan cuule bi ya? ah domu Calvin Kap maanaam rakku ya. Murid Saade oh, Picasso Picasso ok xam nga Zamzam Ramadan ah. kee seen rakk la waaye après Thier dina leen présenter xar yëpp moom mu jël temps parce que tamit waaw moom ci gétt gi moom moo Mau ci mau mau moom mu jël paaram Mau mënut a bañ a wax ndax moom comme moom mooy mooy gestionnaire u bergerie voilà moom mënut a bañ a wax présenter expliquer iya. leen affaire yi d' accord aussi hmm. tamit mooy aussi yéen da ngeen di prioriser ay famille yu bari quoi macha allah donc liggéey bi loolu est que da ngeen di am yoo leen di téye wala ñëpp dañuy da di génnee rek pour production. waaw euh, femelles maanaam loolu luy genre entreprise la. Mhm. femelles yi moo koy doxal. tey jii boo amee mâle bu ñëpp di coow. te amul femelle yu mu tëb amul progéniture amul. Euh, ay doom et tout. loolu c'est élevage égal donc femelles yow normalement booy élever booy commencer sax. bu wutee quatre femelles. ben mal doyna wala sax mën nga bañu a commencé ak mal moo tax femelle yi chaque fois ñoy gëna bari donc li nga wax aussi nekul ne femelle yëpp lañ leen di jaay parce que tay jii nii am na femelle yoo xam dañ leen do recruter amna yo yoo fi lañ juddoo mhm. mais duñ leen jaay parce que yoy dañ ci liggéey d'accord parce que li ñuy soxla ci élevage suñu production mhm. yenn xéetu doom yi nga xamante ne Saalum da kay jur muy muy def euh bruit ci biti waaw yoy femelle yi ñoo la koy mëna jox donc da nga nekul da ngay ñew rek di jaay d'accord léegi seen seen relation tey par exemple ak ak éleveurs yi. Mhm. ak ñu ci mel ni comme père Aboukan tonton Abou ñu ci mel ni comme jeunes yi seen morom ñi nga xam ne xaw ngeen a maase ay siré. waaw waaw waaw ñu ñëwaat. ñooñu ñooñu waaw tey yan lan mooy seen relation par rapport parce que yéen a déggoo ci benn affaire parce que gis nañ léegi foire bi passé kii bi ni ñu ko waxatee sax. Euh, foire bi fila bi. Mm. bi paase nii Dakar. Mm. ñu gis fay affaire doy waar ay affaire de mystique ay affaire yoo xam ci ay xar pour man loolu message la sax moo bëggoon lancé waale xar yi du pour ñëw pour benn compétition boo xam ni voilà. Mm. ay ay mystique wala ay yenn affaires yi. je pense que war nañ organiser waat élevage bi. mu gën a mu gën a restreindre. parce que lu ñu am nii war waruñu koo yàq quoi parce que ñu ngi ci benn level. boo xam ne fa lañ egg war ko mën dépasser. xar yi war a mën a dem fu France dem ñu dem ay exposition saa aussi c'est à souligner la mais ça aussi c'est parce que aussi am na ay affaires yu am mais xam nga rek man du ma dugg si ay détails yooyu yow wax nga voilà mais wax nga ko mais yooyu noonu du doxal élevage mais li ma mun a ñëw mooy comme li nga ma laaj suñu diggante ak yeneen éleveurs yi ñi ngi sekk jàmm hmm. alaaji Siré Siré Jaxate hmm. moom ñi ngi sekk jàmm hmm. moom ak ñoom ki euh, seen bergerie mooy bergerie alhamdulilah moom ak ñoom gay Maxtaar yooyu. jaay nañ leen gaynde yàggul. waaw ah, gaynde bu ñu dugg dinañ ci waxaat léegi donc euh, suñu relation ak éleveurs moom ah. mi ngi rafet pa bi aussi mi ngi sëg ak éleveurs yi mu rafet. ñoom ñëpp mi ngi nice te man ah. damay lancer message aussi ñu fexe mu nice. parce que ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci sommet élevage ñoom dañ ko rafetal. dëgg la ñoom ñëpp bu ñuy wootante tey man damay dégg pa bi kilifa la day déggante ak yeneen kilifa. dëgg la des fois dañuy toog ñuy wax ñoom. waaw mais da ngay xam ne ñii jàmm la ñuy woote quoi dañuy ñëw mais paa bi ñëw na tey jii nii benn gain boo xam ne ma koy nuyu au passage Samir. di Samir xamantewul woon ak paa bi noonu noonu avant. Samir ñëw fi nii rek ndax soppe nii ci élevage nii rek de. paa bi jox ko gaynde ne ko jëlal yóbbu sa kër. mu produire. mu produire après Samir joxaat ñu ay xar affaire bi doon te. te ba tey xaalis ñëwul. mu nekk échange bu donc loolu ñu ngi ne déjà benn esprit de fraternité partage boo xam ne gars yi war nañ cee bàyyi xel. parce que àdduna amul solo. lii ay xar kese la. te ji dañuy dee bàyyi ko fi. billaahi kon jarul yenn yi. lu weer lu wér moo tax di nga ci am xaalis et tout. mais saa yi lu doonul sa wërsëg doo ko lekk. doo ko tey jii nii benn côté sax laaj nga ma sant lu tax affaire de foire doo leen. dem genre affaire mais genre affaire yu détail yooyu noonu sax boo bokkaale na si. Mhm. donc je préfère nous préférons sax laay ak paa bi. Mhm. toog suñu coin liggéey suñu liggéey ku bëgg xam nga. waaw loolu la quoi mais gars yi nañ ko rafetal rek. parfois da yëfu jàmm looloo tax ma bëggoon lancer message boobu à l'endroit des éleveurs ñu gën rafetal toogaay yi gën am xorma ci li ñuy def gën a jox valeur élevage bi ñuy def te bañ koo xeeb ñi ñuy def nii détail yooyu man musuma assister lu mel noonu ci foire donc c'est la première fois ma assister ci donc moo il faut il fallait que j'en parle moo tax loolu nag maa ngi leen di ñaan ñu jéem a vraiment rafetal ko neex ne lii lu ñu bëgg la suñu bëgg-bëgg la donc bu ñu bu ko def affaire de làmb nañu góorgóorlu vraiment nu mu gën a rafetee ñu defee ko noonu ñu eggali wili fii aussi booy xool ah. xar yi booy xool ci biti nii yu génn ci ay mbote rek nga fi gis waaw donc mbote yi nii seen yaay moo nekk na de ah. fii genre maternité la ok léegi donc femelle yi nga xamante ne wàccee nañ seen ay doom wàccee nañ seen ay doom fii lañ leen di génnee ñuy génn gis nga nii bu ñu génnee dañuy mën a lekk si repas bi tuuti naan ndox doxantu loolu yëpp pour bañ xar te loolu ay système la yu ñu trouvé yoo xam ne vraiment bu ñu ko defee gis nañ ne day amélioré donc fële mooy maternité bi gis nga fii femelle yi bëri na la mooy maternité bi xar boo wàccee rek fii lañ koy dugal parce que li ngeen def nii hmm. am naa benn benn bu ma euh, lu ma gisoon tey par exemple hmm. xar yi du ñu nàmp heure bi hmm. peut être mën nañ bàyyi ba ngoon seen yaay yi récupéré am soow bu baax ngoon bi ñu mën a nàmp ba suur xar yi doo leen stressé da ngay dem ak ñoom no stress comprends nga boo leen koy def da ngay gis ne que maanaam amour bi benn affaire la psychologique boo xam ne yow da ngay dem ba am say système yoo xam ne sax yow yaa ko créé sa bopp te ay jeunes éleveurs sax dañ koy def dëgg la dëgg la parce que tax mu gën a jege mu jege gën a jege nit ñi gën a am attachement quoi macha allah bu stressé Masha allah Masha allah ah waroon nañ fi fekk paa bi nag ba mu ci quelques cadeaux. paa bi waaw ndax doon na nekk lu nice. mais paa bi mi ngi leen mi ngi leen di laaj mi ngi leen di nuyu aussi. nee bu ngeen waxee man rek day mel wax ngeen ak moom. waaw ñu koy nuyu bu baax au passage. lii ay ay ay ay ay ñeneen la yoo xamante ni waaw ci génération future bi lañ bokk ak avenir bu gi. Ah. am na ay doomu gaynde ah. yooyu noonu yëpp donc euh, après dinañ leen ko. présenté waaw doomu gaynde lañ. ay doomu gaynde la. macha moom aay na si cuulul moom. macha allah macha allah <laughs> macha xool jàmbaar ji nag ki nga xam ne moo waral coow li. waaw kii waral coow li. waaw Saalum ay Saalum Saalum. waaw. xaar ma présenté leen mom nak dafa fiir parce que bu dugg see si biir rek day yakar ne jabaram yi laa mbaaru laay lijjanti te mo xamul ne mon ne ngay bëgg di topato rek ndeysaan eh, salum a ngi ni legui dafa boñ doon présenter salum tay lan ngay wax salum salum bu ma leen ko doon présenter ya. manam duma xam fumay commencé xam fumay jéxalé mhm. ndax def na lu ne si élevage iya. ki dafa dem ba nga xamante ñun ak mom doonatul affaire da ki wala dara dañu dem ba mhm. ci tey jii boo ñu fayoon cent millions sax duñ ko jaay. dëgg la booy xool li mu def si élevage. Mhm. palmarès am ak yooyu noonu yëpp man du ma si ñëw. parce que nit doo nekk di naan ñoo def lii wala laa mais boo génnoon. Mhm. laaj éleveurs yi laaj gars yi laaj tuuti rek. Mhm. ba seen foire bi mujj bii fila bi di nga xam. dëgg la kan mooy Saalum kan mooy Saalum ci ay doomam ak ay sëtam. dëgg la te musul dem foire moo moom mi ngi toog moom laay wax mu ngi toog ruqam. mais ay doomam ñi ngi toj. foire yi ñu ngi toj élevage bi. yaay Picasso moo nekk ni waaw bi mooy yaay Picasso. waaw nu mu tudd moom. kii mooy Calvin Cap doomu Dactif. doomu Dactif. Mm. macha allah mooy yaayu Ramadan aussi. Mm. di yaayu Murid Sadikh yaayu Zamzam. ah moo jur Zamzam. waaw moo jur Zamzam aussi. macha allah. boo limee rek juum daal parce que Saloum moom vraiment macha allah bu ñëpp di saluer. moom moom fan la jógee kan moo ko jaay paa bi waxoon ngeen ko sànq xaw ma. Euh, moom mi ngi jóge Tëngéej. ci Adama Diouf. ma koy nuyu suñu père Adama Diouf moom d'ailleurs ba tey moom mi ngi taxaw ci bergerie bi doon koo xam ne comme genre encadreur mhm. parce que bergerie bi day uyu turam mhm. bergerie mystique du Sénégal mystique bi moom benn kuréel bu ñu créé nii rek maag paa bi dañu toogoon di reetaan nii rek mais nañ def loolu comme ça tur bi gën a yéeme mais du Sénégal bi moo lay wan ne que ñëpp ci lañ bokk dëgg la wala grand Adama Diouf moo ñu jaay xar bi ba tey jii nii ngi liggéey mi ngi am fii ay xar ñu ngi amaat si moom ay xar loolu laay woowee fraternité bu nekk si élevage mooy partage bi mhm. tey jii nii da ngay ñëw nit nga may ko xar sax mu dem jaaye ko 10 millions. dëgg la dëgg mais loolu noonu. lii ay alalu àdduna la terul yooyu noonu yëpp nañ ko rafetal xam nga. Mhm. Ah, loolu mooy yoon Saalum Saalum. Saalum <laughs> euh, mais mais Wily. waaw ah. tey Saalum jur doom bu phénoménal mooy ñu ngi koy wax gaynde mm. gaynde ngeen génnee ko jaay ko Siré Diakité. waaw ah. mais. jaay euh, bi nu mu demee comment ça s'est parce que man ku ma ne woon gaynde tey dina génn fii kooku waxoon du ko gëm mais tey loolu nu comment ça s'est passé loolu laaj naa ko Siré mais bon avancé nañ ci wax nañ ci et mais yow laa koy laaj. yow Siré yow lu mu la ci wax. ah non yow laay laaj nga wax ma ci. Ah. waaw. waaw c'est mooy li nga wax aussi xar bi jaay nañ ko doomu gay doomu Saalum bi gaynde jaay nañ ko siree Jaxate mais aussi xam nga àdduna. Mhm. lépp lu baax mënoo ko téye tay jii nii bu fekkoon xar phénomène bu fi juddu rek ñu téye ko ku ci mel ni Ramadan Picasso ñoom ñëpp du ñu dem te ñoom ñëpp boo leen fekkoon fii ban njëriñ la am donc ñeneen ñi aussi ñoom dañuy bénéficier wu tey jii ci xar bi ngir ëllëg ñu ni tam mun nañoo soxla xar ci ñoom mais transfert Gaynde dafa doon beneen transfert boo xamante ne bu doy waar la bu doy waar daa yóbbu xool waaw daanaka euh, histoire laadum ah. Gaynde bokk na ci xar yi gën a cher ci histoire bu ci gënul a cher waaw bu ci gën a cher parce que booy xool cinquante ah. waxuma amul de mais pour nga wër nii ba gis xar boo xamante ni jar nga amul non amul parce que ah. yëgul lu ñu waa te donc euh, jaay nañ ko siree mu doon jaay boo xamante ni vraiment ànd nañ si plaisir. Mhm. te ñu ngi ko si ñaanal mu barkeel. lépp lu mu ko ciy séntu aussi mu am ko ci. mais mu doon transfert boo xamante ne bon. waxtaan bi nag ak waxaale bi yombu woon mais bon <laughs> géré nañ ko xam nga gaynde moom transfert mënu la yomb du yomb du yomb du yomb mais noonu la noonu la man man maa ko ko jaay xam nga te paa sax xamantewu ak ñoom de man la waxal ma wax ak ñoom hmm. ñu jaay leen ko mais vraiment c' est un plaisir parce que aussi élevage noonu la. lépp lu baax mu ko téye da ngay jël yenn yi nga jox ñeneen ñi ñu liggéey. <coughs> parce que kooku mun na liggéey ëllëg ak si biir yow nga soxla dara ci moom. dëgg la loolu mooy élevage loolu mooy élevage loolu mooy ah. élevage en tout cas rafet na trop macha allah. Mm. Napoléon Napoléon laa bëggoon wax gis nga ko doomu doomu doomu Picasso bi. Napoléon waaw daa mel ni gis naa ko ci Facebook mais gisaguma ko nii gisagoo ko nii ah waaw gis naa ko ci Facebook bi d'accord muy yooyu yëpp vraiment ñuy ay sëtu Saloum waaw nañ lu rafet vraiment ci ci ci élevage bi Saloum moom nekk na ko xar boo xam tey bu ñu doon décorer xar Sénégal yaakaar naa ne moom la ñuy décorer waaw Saloum de moom mérité na ko wax dëgg te loolu man du man maa ko wax éleveurs yi ñoom ñoo ko wax dëgg la te àdduna aussi bon munoo am ñëpp d'accord ak yow loolu mënu la ne am ñu contre am na nañu kii mais bu ñuy wax décoré moom. Hmm. ci wàllu reñ ak durée de temps waaw. saalum Saloum booy xool. am na lu mu def si élevage. lu bokk la yeneen xale yi mi ngi si instant yi mun naa ne mi ngi si huit ans et quelques. huit ans et quelques. waaw parce que de côté 2013 noonu la judd. Mhm. mais doonul xar bu ndaw aussi booy xool xaru âge am. dëgg la pour instant yi booy xool yeneen maal yu mag yi fi nekkoon yëpp ñuy coow. pour nga gis ci bu romb six ans sax yombul. yombul mais moom yegg na ba huit ans. mi ngi nii te ba léegi day ay doom. ba léegi. nii yàggul dara rek ay triplé la wàccee. macha allah waaw macha allah kon mën nañ xool yeneen bopp yi. waaw benn màll bu ñuy wax maestro. doomu Massayer la. ok Massayer benn màll ndeysaan Massayer doomu Karim Maysa Wade. waaw oh, doomu Karim Maysa bu Karim Maysa bu Paaji bi Wade. waaw ak Aminata Mbengue Ndiaye. d'accord Massayer doomam la kii doomu Massayer la. Massayer demoon na voilà en parlant de foire. <coughs> Massayer bokkoon na xar bi nga xam ne moo duggoon concours foire euh, ADER daanaka booy xool je sais pas non du ADER benn foire Tëngéej la woon. ok moom moo fa demoon représenté bergerie bi Et il a été champion. Donc euh, voilà quoi. qui dorme le après il y tëngu yu ñu ko booleel. avant allah. avant ñuy yegg ci kaw. mu hmm. woon leen. c'est très important ci bergerie. c'est très important ci bergerie. waaw mu mel ni lii bu boîte à pharmacie bi. voilà boîte à pharmacie d'accord donc lii booy xool gis nga. Uh-huh. garab yaa ngi nii. Uh-huh. lépp xas bi dañuy am seen. carnet xam nga uh-huh, tout. c' est très important daggukaay. oui xar yi dañoo complet lii yëpp waroo xam nga. war warul manqué ci bergerie. dafa war a mais est ce que vétérinaire tey bu ñëw suivre xar yi ak. waaw mi ngi ne sax kii mooy ah. assan waaw ah. moom mooy vétérinaire bi nga xam ne moo leen di suivre chaque jour. Hmm. ak effectivement docteur Boy. di ko ah. nuyu au passage. Hmm. docteur Boy aussi moom moo fi nekk en principal. Hmm. Assane moo ko fi nekkal en second. macha allah donc yi. di leen toppatoo di yaram ak yooyu. mel ni tey boo gisee Saloum am tey huit ans macha allah. ça veut dire que amna topoto topoto parce que tey jii nii dañ leen di topoto docteur boy vraiment diko nuyu et diko remercier au passage ndax euh, <coughs> sonu na ci bergerie bi. Mhm. vétérinaire la mënoon la né ba ma yëm ci vétérinaire rek mais dafa sonn ci bergerie bi def na ci loo xamante ne xam nga jàppale nañ ci xar yi seen wér yaram seen évolution suñu laadum yeeg lépp. macha allah vraiment di ko nuyu au passage. macha allah yegg ci kaw. vraiment nii des fois bergerie bi mënoo am production lépp baax uh-huh. des mu am yenn femelles yi nga xamante wala ak yenn jeune mâle yu raté wala yenn croisement yi nga xam ne war nañ ko essayer ci mâle yi nga xam ne sax amuñ ci ñoom yaakaar dañ leen di may chance donc ci kaw fii nii moom genre laboratoire la boo xam ne des fois sax mën nga am xar booy làkk boo xam ne bëggoo visiteur ñu ko ñu aj leen si kaw et tout doon laajte sànq yaayu gaynde <coughs> kii mooy yaayu gaynde ki mooy yaay gaynde waaw macha allah. yaay kii mooy bébé ay bébé Aïcha moom mi ngi produire ba léegi. non gëj na produire nag. gëj na produire. Uh-huh. mais ñu ngi koy essayé waat moo tax ci labo bi la ñëw ni ñu ngi koy essayé waat am ay uh-huh. traitement ñu koy defal et tout. mais vraiment mu doon xar bu ndaanaan. Uh-huh. vraiment c'est à saluer mooy yaay gaynde macha allah. pour wane ni vraiment xar yi tey ñu ngi ci espace boo xam ne tey permettre na leen tey ñu am euh, air buy dugg bu baax ñuy am naaj comme ni nga ko waxee di leen génnee parents ñuy doxantu ni loolu lu am solo la ci ci ci ci xar yi. voilà loolu c'est loolu c'est très important te yenn yi dañ koy fàtte. Mhm. xar bi dafay soxla naaj. naaj lépp ko soxla nit sax da ko soxla. Mhm. garab soxla ko donc dañuy soxla naaj foog nga leen di génnee leen indi cours bi nii bàyyi leen naaj bi ngelaw bi dugg leen fraîcheur bi eh, air eh. pur bi et tout eh. des fois xar sax am na yenn yuy fanaan fii te dañuy aimé aussi tamit hygiène bi lu am solo gisoo gars yi ay jàmbaar lañu saan ñoom tey ak yeneen gars yi ñoom El ñoom Maam Thierno ay jàmbaar lañu ndeysaan xoolal ñu ngi bale affaire yi ñu ngi leen di gis nii chaque jour dañuy bale suuf bi lay ko tout pour rek hygiène bi mhm. donc loolu moo yoru société foog ngay jël soin ci ay détails yu sew yooyu noonu yëpp da ko war a régler ñi nga encadré bergerie yi mhm. gis nañ sujet yi wili war nañu lépp expliqué nañu ne que yaay gestionnaire bi mhm. tey par exemple lan nga ñu mën a wax tey ci bergerie bi ak ci Saloum ak ay production waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax mhm. di leen siyaare bu baax di rafetlu seen teewaay fii parce que itam li nga war a mën a fii bërëbu liggéeyukaay la te liggéey bi dafa ànd ak jaamu yàlla parce que ñii ngay gis ni ay mbindeefu yàlla lañ yoo xamante nii xamuñu amuñu mënuñu lépp lu nekk ci ñoom rek yow mi fi nekk yaa koy def parce que loolu donc boo ci jàppoon kese donte bu ñu la fayaloon ñaar dërëm nga nekk ci di leen defal di dox seen li nga xam ni mooy seen bëgg-bëgg yàlla moo lay fayal bu ko te lii jeune bu nekk war na koy gis di ko def parce que élevage mooy loo xamante ni sën bu ci nekk ak lu mu métti métti métti boo doo ñooy kenn yow yaay ki nga xamante ni tey loo bëgg a faj rek da nga koy faj loolu li la ko may mooy que ni yërmande bi nga am ci xar yi mhm. ak li nga xam ni toppatoo bi ngay def ci ñoom mhm. loolu yàlla moo la koy fay après di des nag mooy li jëm ci comme bergerie bi wax dëgg yàlla ñun ñoo fi nekk man Dieng ak booy Bey Elas mhm. mais toujours dañoo am programme liggéey bu ñu xëyee chaque jour rek bu ñu xëyee xam nañ li ñu war a def donc am na ci yenn détails yoo xam ne bu ñu ci yegsee tey vétérinaire bi la ñuy woo yaa ngi dégg bu fekkee premier secours am na nag comme xar bu am doom wala yeneen ak yeneen ay mamet hmm. ay wen bi métti hmm. ay yeneen yooyu am na yoo xam ne ñun mën nañu ko defal suñu bopp avant vétérinaire bi di ñëw hmm. parce que nag loo yàgg rek bu yàggee da nga ci am expérience voilà donc am na ci yoo xam ne du ñu xaar vétérinaire mais am na ci loo xam ne nag ñu ci yegee faaw ñu woon vétérinaire bi mu ñëw defal ñu li nga xamante ni mooy suñu traitement mhm. mais tey xar yi ngay gis nii chaque jour ku ci mel ni Saalum nii bu ñu xëyee dafa am moom liggéeyam boo xamante ni moom lañ koy defal moom la xar yi sax lu ñuy lekk moom suñu secret la boo xam ne ñun dañu liggéey moom ci loolu waaw pour pour mën a âge yëpp waaw que li muy lekk ak xëy ran xar yi lekk loolu du benn et dafa am heure yi muy génn am heure yu muy lekk mhm. am heure yu muy tëb te du n'importe xar lañ koy jox mu tëb mhm. te bu war a tëb itam dañuy xaar ba xar bi sëlër mhm. ñu dugalal ko ko mu tëb benn ñaar ñu génnee ko parce que nag mag da nga koy dencal xam nga bokkut ak comme xale yi nga xam ne ñoom mhm. mën nañ saa su ne tëb tëbaat tëb tëbaat bokkuñ moo tax xar ñu bàyyi mu engraissé du ñu def loolu lépp ñun dañuy jàpp xar détaillé benn par benn du ñu bàyyi dara. benn par benn du ñu bàyyi dara. dëgg léegi loo ñuy wax ci zam bi nga xam ni mooy tey mun nañ ni mooy relève bu tey bergerie bi. juddoom dañuy fee fekk. Mhm. mu doon loo xamante ne nii dafa yéeme mooy xar bi ngay gis ni sam-sam. Mhm. parce mhm. lu xar di am rek da ko am daxañ ko denc. di doomu Saalum Saalum ak Calvin Cap. di rakku Maurice Sadikh lu lépp dañoo dañoo yaakaar ci moom lu ne. macha allah te gëm nañ ne dina def lu ne. macha allah muy sam-sam boo xoolee mu ci onze mois. te wax dëgg yàlla xar la moo xamante ni prix bu ne mu ngi dégg. mais borom dañu ko ne xar mi duñu ko jaay parce que xamul tax duñu ko jaay. parce que kii relève la pour Saloum bii. te éleveurs bëgg nañ kii bi mu juddoo bees tag. première semaine bi dégg na 10 millions. est wal xuraan azim ñu bàyyi noonu mu sedd ñu dawal dawalaat prix bu ne boo xalaat fi mu toll nii mu ngi ci koom. dëggaat na vingt cinq dama caag fi mu toll nii billaahi wallaahi maa lay waatal na mu ci quarante mais loolu du loolu du quarante yi kii da ngay xool li mu làmboo ak li nekk ci moom mhm. ak lam lay jural yi kii bu juralee benn série rek hmm. cinquante millions yi day wàcc waxuma ak leneen kon donc kii yaakaar bi ñu am ci moom rëy na kii mooy relais fu Saloum relais fu Saloum rabbi macha allah hmm. doomu Calvin Cap ak doomu Calvin Cap ak euh, macha allah yaa onze mois bu defee ni comme ay magam ay Picasso ak ñoom moom hmm. je pense que dinañ non moom déjà mi def bruit macha allah no moom beneen affaire la <laughs> dafa ko quoi ah, xam nga rek waaw bu ah. raay bi gisoo ko koy raay gisoo ma day firi day firi hmm. ah, maanaam karaw karaw gii boo koy dindi rek karaw gu dee gii ah. loolu rek lu la ci yàlla mën a bindal ci tiyaabo kenn xamul nu mu toll loolu amul amul ku ko mën a fay pourtant dégg naa sax ñu naan xar bu lekkee ba suur fëggatu bu muy fëggatu noonu karaw yi di wadd ay tiyaaba la pour yu dul jeex mooy ci ki ko yor parce que ñii ay malal la ñu dëgg la ñii il ñu leen kii nu mu mel rek hmm. ñun la kon donc loolu dafa jooy jaamu yàlla loolu kese rek doon na jaamu yàlla kon xar yi eh, mënul wax damaa feebar donc mu nekkoon vraiment lu am solo ñu ñëwoon découvrir tey bergerie mystique bu Luc Nicolaï ñu ngi koy nuyu de passage vraiment di di remercier tey ci yaatal bi léegi tey mun nañ dem léegi xooli tool yi continuer yi xam naa fa la ñuy tëjee suñu gis ngeen ko mbokk yi comme ni leen ko waxee woon euh, jóge nañ ci bergerie bi tey ñu ngi nii ñëw ci tool bi pour wane benn activité bu Willy di def wane que ni moom yemul ci élevage aussi kese mi ngi ci agriculture. aussi fii ñu ñëw tey découvrir tool bi nga nga war ñu koo wan euh, tey lan moo indi idée tool bi ak bay bi nga boole comme li comme li tubaab di wax l'utile à l'agréable. Mm. nga ñëw tey fii sax fekk nañ fi ay autriche mm. mel loolu yëpp ci xeetu élevage la bokk. tey lan moo la motiver pour pour lii nii macha allah. bon li ma motiver mun naa ne dañu dem ba ci biir ma jàngat ne que avenir u Sénégal ci suuf la ne. Hmm. man nag du ma am du ma wax ne que li ma wax mooy dëgg. Hmm. mais gëm naa ne avenir u Sénégal bu ñëpp kon bu ñu ci bëri parce que ñëpp mënuñu def la même chose ñu ci bëri concentré wu woon ci agriculture bi gëm naa ne dinañ romb fi parce que boo xoolee dëkk yu ci mel ni États-Unis hmm. favoriser l'agriculture. donc c'est ce am solo la. Mhm. donc euh, loolu moo ma motivé, ma xam que Sénégal aussi avec bi foofu la il y a ay grands agriculteurs qui fi des exemples, des références. lañ ay référence lañ. ma mhm. jël exemple foofu xam ne affaire yi fii la agriculture bëgg mais tey lii ku ko gis xam ne tey lii. Mhm. Euh, investissement la investissement bu bu bu la. Mhm. mu mel ni tey sa papa est-ce que tey dalaa dalaa jox benn benn benn benn benn kii benn apport walla benn euh, mhm. jàppale mu ne ni buux na la quoi may na loxo tey ci ci ci lii lépp ku ko gis lii xam ne investissement la daal macha allah. bon booy xool côté boobu li ma la si mën a wax mooy ne que. Hmm. dama ciy lancer waale message. ndax jeune jeune looy munti def. Hmm. na nga gëm sa bopp.

wala nga am ci résultat bu kawee sa njortu mhm. parce que ñëpp amuñu moyen wu jàppale mhm. donc euh, mën nga sé am euh, lu la bête mais l'essentiel li gëna am solo moy na nga fexé concentré wu ci dara xam mhm. naa nga fexé nek ci dara tay jii man mën na ne fini, amul kenn ko xamante ne mën nañoo ñëw né dañ ko ñëw di ko fay muy liggéey wala dara dañoo ñëw xéxal suñu bop man sama bop mu kul sama bop ba ci garab yi ngay gis ni waaw li ñun ñoo ñëw man ak sama gaay yi ñoo gasal suñu bopp mhm. kamb yi mhm. désherbe fii yëpp comprendre nga mais parce que aussi foog nga nangoo fayit foog ñu nangoo fayit dañoo fayit ba xam nga li olof njaay di wax ku yuut moo neex a jàngal tëfli la donc da ngay nekk si dara bu mun laja pala, dëgg la waaw donc dañoo ñëw di sacrifier ben affaire bu ndaw la ñu commencé bo xamante ne benn kii la bu amone ay papaye mi ngi nele ay papaye ay limon mhm. fa lañ commencé di dóor ma sama gaay di ñafé après nak ci la ci lañ demee ba xamné ni mhm. li ñu la man lima amone ci xaalis ay yenn affaire yu ma dencion pour ay projet mo sacrifié wu ko ci macha allah comprendre nga duggal ko ci té xamné li ni mo ñu mëna a dara dëgg la tey fii par exemple lañ commencé deug la mais li par exemple tay euh, lan ak lan mu nga fi def mu melni tay production kaani peut-être lii ay kaani la. ci nga nga gën a concentré wu tey. waaw fii nii booy xool am na ay arbres fruitiers. Mhm. am na aussi kaani. mais booy xool en principe euh, kaani bi moo gën a waral projet bi. parce que aussi dama toog ba si biir ma ne waa man. Mhm. Sénégal fii kër gu nekk chaque jour. kër gu nekk laa wax de. chaque jour. dina am kaani minimum dinañ toog benn kaani. <laughs> te ñaata million de personnes ñoo nekk Sénégal dëgg la. donc kaan yi boo ko day don lu dox. Mhm. après nag ci li ñëwé mu doon base projet bi comprendre nga. si muy projet maraîchage bon c'est c'est un début. Mhm. gis nañ ne liggéey nañ gis nga ba kaani gi kawee et tout mais man jàpp naa ne ñu ngi dooti tàmbali. waaw daa mel ni yéen a ngi production ni instant bi sax ci récolte lañ. récolte ngeen nekk nii waaw. waaw ci récolte lañ nekk nii ci récolte. waaw ok mel ni temps yow temps bi nga concentré wu tey ci ci ci defar kaani mu mel ni tamit am na installation ñu ngi gis fii château d'eau li ay système goutte à goutte la mu melni dal jëm nga vraiment améliorer wu ci côté euh, agriculture waaw li nga wax laaj na temps bu bari da vraiment euh, daw lañ ko commencer té biñuy commencer fi amul won dara c'était vide comprendre nga. fii mhm. terrain vide la woon garab yi ngay gis ni yeb ak kanib yeb terrain vide la amul won château amul won citerne teen bi non la nekkoon mom kese donc ci la ñëwé tabax château aj ci euh, si terre réservoir bi defar ay kii raccordement yi branché xam nga. job et puis mu noon vraiment affaire boo xam ne métti na mais expérience la. Mm-hmm. ndax tey jii nii dalay jàngal lu bëri. da lay jàngal àdduna. Mm-hmm. comprends nga mais loolu pour nga xam ko aussi foog nga nekk ci. dëgg des fois mu métti ngay jaayante di daanu di jóg des dañ doon toog fii am problème essence. comme nga donc kooku loolu noonu rek da lay wan ne basé wuñ ci ay pap dëgg la loolu lu wér la comprendre nga dañuy toog fii am problème mu gains pour jënd ko dugal ko ci groupe bi mhm. taal arrosé dëgg mais tout le temps suñu ñàkk bi ñuy ñàkk ak sonn bu ñu ciy sonn yàlla daf ñuy taxaw dëgg la xéwal ñëw ñu yaatal mais tey ji nii bu ñu nangul woon xeex toog suñu kër rek <laughs> donc tey jii lii du sotti lii du sotti après ci la lépp ñëwee au début ñu woon arrosé ak euh, goutte à goutte. Mhm. kii lañ ko doon def. ak euh, arrosoir no ak kii euh, robinet. ak racole pour asperger. voilà donc moom lañ doon arrosé wee. Mhm. bu ñu demee nag ba garab yi taxaw. ci lañ defee installation goutte à goutte yeeg def yenn kii. d' accord kon ñu bàyyi la nga récolté tuuti ñu wan gars yi ne kenn yow. vrai agriculteur nga <laughs> <laughs> waaw non lii. li, par exemple yow tay ban ban variété de de kaani nga nga def ni tay bi moy kaani Bigson. Bigson. Bigson wa hmm. kaani Bigson mo nek ni ok saf sap la def nak yi <laughs> dom yu ndaw la mais. Mhm. tay ji ni en parlant de vrai agriculteur li ni dañ jang hmm ndax tay ji ni lepp lo xamantene ñoko ci def ñoko defal suñu bop fay nit fay ñun nit pour mu ñew liggéeyal ñu wala dara. Mhm. ñu futeeku. yendu si naaj bi fanaan si naaj bi chaque ci guddi bi fii dañ fiy fanaan comprendre nga di sacrifié wu donc loolu rek war na laa mën a wan ne jeune dafa war a sacrifié wu gëm boppam. Mhm. comprendre nga ba pare yow say rêve boo ko gëmee dañ ciy dem jusqu'au bout. man dama gëm ne maanaam projet bii bi ma koy tàmbali dama gëm ne lii tant que réussiruñ ko man du ma génn fii. bakken laa siy jaay. jaayante ko. comprendre nekkul ay affaire de. paham nggak? Iya, kompromi. tey production bi tay ñaata temps la jël. bon mën nañu né biñ ko jëmbatee. dañoo def 3 mois après si lañ commencé récolter. d'accord donc 3 mois yo mi ngi tombé ak juillet juillet fin juillet début août si lañ commencé récolter. mais boy xool kani bugul ndoxu taw. du coup bi nawet bi dugusé bon on a eu des problèmes c'était carrément difficile parce que kani bi dafa doon am ay fièvre xam nga. muy métti. muy laaj ay traitement. parce que produit yi kaani bi dina produire mais li muy produire kaani bi day feebar bu feebaree mënoo ko jaay. donc euh, vraiment jànkoonteeg nañ ak ay problème mais jàngal nañu. Mhm. parce que expérience mooy li may wax sànq expérience bi jar na lu ne. dëgg naa nga donc production bi bi ñu commencé juillet après si la ñu dem ba nawet bi jeex nii nii nii nag ñu ngi commencé am production bu normal. Mhm. gisoo doom yi léegi gisoo. ñu ngi rafet. Kom rang. léegi nag production bi mi ngi démé no xamné chaque deux semaines da ngay récolter. hmm donc garab bi tant que mi ngi am ndox di am fu di am fumier am. engrais day produire chaque deux semaines da ngay récolter. te li ngay récolter macha allah waaw. xaliss la quoi da nga ci mën a yalla yàlla. macha allah yal na yalla xeb doli amin amin donc ñu bàyyi la nga récolter touti rek. waaw récolté ak sama gars yi. parce que récolte bi tamit bon dafa neex. lii agriculture daal beneen affaire la parce que fii boo fi nekkee ak nature bi xam nga. picc yi. vraiment. damay ragal sax mu mujj am bergerie quoi. non day am bergerie <laughs> fii am na place bergerie fii mooy place am. waaw mooy sa liggéey mu génn li rek neex na moo gën sax xaalis. loolu dafa leer bañ a wane ni jeunes yi mën nañ bañ a xaar ci état ci dara mais tey nan nga gisee ni état war na mën a jàppale jeunes yi pour ñu am suuf bu ñu bayee. état bi ñoom waruñu sax xaar jeunes yi di leen lancer message wala dara <coughs> parce que tey jii nii jeune mooy avenir u réew comprendre nga. Hmm. donc ñoom ñoo war a organiser wu fexe de sorte que jeunes yi am jàppale. am na yenn réew yoo xamante ni tey jii loo boo nekkee di góorgóorlu di def agriculture loo produire même bu yàquwee état da lay jàppale jënd loolu wala rembourser le prix bi wala yooyu mais tey jii ñun état ñu toog di xaar jeunes yi di wax comprendre nga. don mm-hmm. jeunes yu bëri ñu ngi fii di chômer sonn muy métti ñuy kii parce que gisuñu ñu def peut-être que man opportunité bi ma am ñeneen ñi amuñu ko. Mm-hmm. et tout mais état bi ñu xaar loolu. waruñu xaar loolu dañu war a génn xam nga créer organiser affaire yi méttiwul boo organiser benn affaire teg fu ñu sérieux mhm. jeunes yi ñëw même booy am financement wu cinq cent mille mais mun nga commencé ak loolu comme naa nga donc tey jii nii milliards yi ñuy dégg si rajo yeeg yooyu xanaa boo si jëloon benn un milliard wala deux milliards sax tasaare ko si jeunes yi tamit waxuma tasaare boo xam ne da nga koy jël di ko joxaat say mbokk mais am suivi jox ko gars yi mu am suivi mhm. ñu génnee ko mu leer ne lii nii jeunes yi ñu ngi siy jot di si gis seen bopp mhm. mais subvention état yoo xam ne da koy dégg rek doo ko gis tamit. amul amul sens war nañ mun jàppale jeunes yi quoi ci yoon. fii aussi espace vide la wala fii daa am beneen beneen beneen exploitation boo fi préparé dañ ko aménagé nii wala. waaw non fii dafa bokk si projet bi projet ci projet kaani bi dañ fi bëgg a def tamit tàllal kaani comprendre nga di xaaraale moyen parce que mooy li may ñun xaaruñu ay diw wala pap wala financement état wala dara dañuy def xaalis bu ñu am rek. mu doon loo xam ne ñoo ko moom même bu fekkee dix mille ñu dugal. Mhm. mais aussi tamit mooy li nga wax gars yi dañuy war di jàppale gars yi. Mhm. comprends nga ñun ñaanuñu ndimbal ñu ngi xeex ak suñu doole ni ñu ko munee mais tey jii nii fii waroon nañ fi mën a employé yeneen vingt jeunes minimum yoo xamante ne dinañ tàllal def kaani mhm. dugal fële kaani salade ñoom ñu am ci lu ñuy nekk man xam naa ay boo yoo xamante ne nii mun naa leen jël ñu ngi mbuur fii dañuy chômer ñu nekk ci daragum en attendant. mais sama doole yeggagul foofu. comprendre nga. Hmm. mais mi ngi ci projet yi. quoi am nañu yéene bi création d'emploi la am nañu yéene bi. am nañu yéene bi wax dëgg yàlla. am na ay jeunes yu ma fi nekkal di liggéeyandoo ak ñoom. Hmm. comprendre nga nekkul ay surga. Hmm. ay jàmbaar lañu liggéeykat. say partenaire lañ. samay partenaire lañu. comprendre nga. nekkul ay liggéey da ngeen di fayante wala dara. mais dañoo nekk équipe boo xam ne dañuy liggéey. bokk lu ñu gëm. bokk lu ñu bëgg comprendre nga. di xeex ngir loolu. dëgg la des fois ñu toog fii mu métti ñu togg sombi des fois ñu togg suñuy affaire yu neex. des fois ñu récolter xaalis bu bëri am ñu jënd suñu benn xar. macha allah comprends nga donc loolu mooy live bi. nañu jéem a concentré wu ci affaire yi tuuti jéem a liggéey. dëgg la waaw ah, am na ci solo. mu mel ni li mu wax am na solo trop vraiment macha allah wane ni jeunes yi war nañ góorlu ci agriculture. té baña wax baña wan ni kan yow fi sa yef la rek mm. et que ñi la ci jappalé say surga lañ wara dara mais en fait ay ñuy liggéey dañu wara bokk vision mm-hmm. bokk pass pass mm-hmm. bokk and gëm projet bi kenn baña a waronte ñu liggéey ci full ak fayda man lool la motax des fois liggéey sax man buma démé ba gis né yow toxeewoo esprit bobu dama lay écarté mm-hmm. comprendre nga dem liggéey ak ñi nekk ci esprit bobu manam ñu former équipe amul de man damay ñew man diw la wala man ni la mel non non dañuy ñëw nekk ñun ñëpp au pied même d'égalité au même pied d'égalité commencé ndoo liggéey bi sëggandoo guddeendoo ñax mhm. jëmbatandoo garab bi mhm. arrosé ndoo mhm. comprends nga loolu mooy mindset bi foofu la adduna bi toll instant yi nii alors que ñun fii dañu yaakaar ne que maanaam waaw doomu diw non da ngay toog croiser les di joxe ordre tubaab yi loolu lañ rawee bu ñu defee seen entreprise ñoo ñooy premier employé ñoo fay jiitu comme naan koy jiitu man loolu laa gëm loolu laa gëm damay ñëw ak sama gars yi ñu nekkandoo ensemble di joobandoo mhm. ñu doon ay jàmbaar macha allah vraiment nice wéri suñu émission mi ngi jëm ci ci ci jeex mm. vraiment ça a été vraiment un plaisir ñu ñëw fii mm. tey euh, découvrir un peu agriculture bi ngay def mun naa ko mm. tuddee sax agro business dëgg la xam nga ak élevage bi ñu gis bergerie bi nu mel vraiment di la sant di la gërëm ci dalal bi

toog te sa téléphone di commentaire di wax nit lu ñaaw. Mhm. comprendre nga interroger nañ njaga ci YouTube bi nga dugg wax da non mais dañu war a génn ñu wàcc sur le terrain. Mhm. gis nga sur le terrain bii nii man dama fi ñëw xeex fi xeex fi jaayante fi ñafe fi. Mhm. ba benn anecdote sax bu ma fàttaliku ndeysaan ak paa bi benn jour mu ñëw fii ma ne ko waaye dañu dama dañu job ba xaw a tawat nii. mu ne ma tawat bi mu ne ko mu ne ma da nga war a tawat ba deret génn après fa laa gën a comprendre ne instant bi ñi ngi kii métti na. mais defagoo dara defaguñ dara dañu mhm. war a gën a xeex. dëgg la donc nañ ñëw wàcc sur le terrain bàyyi détails yi Sénégal fii nii instant bi ay affaire la caaxaan moo nar a tardel mhm. ni ñu ñëw fii wàcc la le terrain nekk si liggéey même bu fekkee da ngay commencé ak sa benn pàkk boo xam ne dix mètres carrés la sax. Mhm. mais nga gëm ko. dëgg la commencé rek débuté. comprendre nga am na benn borom xam-xam bu ko waxoon je pense indien la xaw nee na képp koo am kuy inquiété wu ci wàllu liggéey dafa metti nii ak nii nee na na ngeen ma ko indil dinaa ko jox li muy lekk dinaa ko jox lu muy naan dinaa ko jox fu muy tëdd waaye lenn rek laa soxla ci moom mooy nu concentré wu ci benn dama bëgg saa yu ma ko gisee. chaque jour na concentré wu ci benn affaire lu mu mën a doon. loolu nga concentré wu noonu dina la jox ëllëg ci biir da lay fay force. Mhm. donc euh, nañ gën a concentré wu ci suñuy rêve. Mhm. focus ci mu metti ñu jaayante ko. ba réussir si ndax wax dëgg yàlla diggante daaw ak ren am na évolution. macha allah bon sant nañ yàlla quoi wax dëgg yàlla. macha allah yi daal pour li may tëjee daal maa ngi leen di wax ne vraiment élevage bi ak agriculture bi mooy avenir u Sénégal. Mhm. te loolu yaakaar naa borom xam-xam boo ko laaj dina ci wax lu bëri nekkul ne nag ñëpp lañ loolu la ñu war a def mais nañu xool ñu bëri ñi nga xamante ne defuñu dara comprendre nga ñu booloo jéem leen a jàppale.

donc vraiment mu nekk benn affaire boo xam ne tey xam naa ne képp ku seetaan lii tey dinga nga am beneen motivation aussi di nga di nga ci jëlee jàngat bu yaatu donc ñu leen di jox dig daje ci beneen numéro incha allah.